ok aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba ci weeru mag wii di weeru koor te nag ñu daje fekk mbooloo moo xam ne mbooloo mu am solo la muy liggéeyal seriñ Touba ñoo xam ne naka jekk ba daa ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñu ànd ko ak ñun muy opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba te jotandoo woon ñu jotandoo woon topp euh, taxawu koor gi ci jamonoy Serigne Saliou euh, àndandoo ko booba ba léegi mun naa ne 2005 ba léegi ñu àndandoo ko ak ñoom euh, tey nag ñu ñëw ci ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent ci weeru koor gi muy tëjte bi yàlla dogal ñu annoncé léegi ne weer wi feeñ na suba wala doon korite ñu taxaw fi nag ak Serigne Moussa mbay mi nga xam ne jëwriñ la ci fànn googu nga xam ne lu jëm ci opérateur économique yëpp moom moo koy coordonné di dajale seeni i addiya di ko indi ci biir daayira Muxaddamatul Xidma ren nag mu am ci lu bees loo xam ne euh, mun nañ ne ak cant yàlla la muy ay ndaw yoo xamante ni dañuy yëngutu ci wàllu koom-koom ci jaay ak jënd nekk ci dëkk bu sell bi ci Touba wala nekk ci Sénégal gi yëpp sax laay wax waaye nag ñoom itam ñu am takku am pas-pasub nag fas yéenee tab bi ci biir liggéey boobu tabbin wu am doole seen kuréel googu ñu koy wax ACIS ñoom ñoo tey teew fii àndandoog suñu ji seen jëwriñ Serigne Moussa mbay waaye suñu fàllu xumma mi nga xamante ni moo leen jiite mi ngi fi ànd ak délégation bu am solo xam naa dinañ ci ñëw ci kanam waaye li ñuy def rek dañuy jox sëñ Moussa mi nga xam ne mooy jëwriñ ji kaddu gi mu ubbi dalal leen wax itam seen taxawaay bu ko defee ñu doog jox sëriñ euh, Modou Awa Balla Jaxate seen sëriñ Cheikh Awa Balla Jaxate mi nga xamante ni mooy wax ci turu waa ACIS kon sëriñ Moussa bismillah. asalaamaaleykum di nuyu di leen siyaare te di leen balu àq di leen baal àq tey ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwéni déwén a ah, mën nag samay kàddu moom mooy sant rek. sant bu bu wër a wër ndax biñ dajee bi ñu jub koor gi waxtaane ko fii a ah, wax dëgg yàlla gaa yi jàpp nañ ci gën góor góorlu ñu def nañ daa def wala ñu def nu ko raw sax mooy li ñi nga wax léegi-léegi muy ndaw ñi nga xam ne sëñ Fallou moom moo leen jiite wax dëgg yàlla ñoom ren jàpp nañ ci taxaw ci taxawaay boo bii ne taxawaay bu rafet la lool te ñoom am nañ ci ak cawarte goo bi ni bii di waxtu boo leen wooyee danañ wu si boo laajee ñu joxe a ah, dëgg la sax mag ñi tam ñi ngi joxe boo laajee daañ joxe waaye ñoom dafa mel ni gone yee leen gën a woyof ay tànk ndaxte tey jii boo xoolee jataay bi rek da nga ko ci xam teewul nag ñi ngi ñi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla taxaw nañ ci ba alhamdulilahi yëf yi deme na nam war a demee nam daa demee wala mu demee noo ko raw ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwéni déwén te kenn ku ne la ci def ñu ñaan yàlla bu déwénee nga mën cee defaat lu ko ëpp fuuf waaw yàlla nañ ko yàlla dimbalee te may na xol joxe gi bi jaay Seexul Xaadim jërë ngeen jëf. waa kay jërëjëf El Hadj Moussa ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko te muy kàddu yu seede yoo xamante ne lu wér la ñun xam nañ ci dara bu baax a baax muy seen takku ak seen pësteef ni nga ko waxee noonu la ñi ngi sant ñëpp mag ñëpp ay mag lañ ay ay ay jëfkat lañ waaye nag ay mag bu ñuy jëf ba gis ay ndaw seeni rakk. seen i doom ñu nekk ci seen gannaaw aw seeni tànk loola dana dalal seen xel bu baax a baax dina dolli tam yaakaar kon loolu yaakaar jooju ñu ngi koy feddali bu baax baax ñun euh, ndax ren ñëw nañ ñëwati waaye ñëwenu itam mooy def ab collectif boo xamante ni dañuy dajale seeni i àddee ñoom ñëpp jox ko sëñ Fallu mu teg ko ci sa loxo du benn yoon du ñaari yoon lenn li ay suukar lenn li ay tàndarma lenn li ay xaalis nu mu ci mën a doon loolu jëf la joo xamante ni ñu mat nañ ci seede kon jërëjëf kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Awa Balla mi nga xamante ni mooy wax ci turu waa ACIS muy mbootaay jotaay googu. bismillaahi rahmaani rahiim. billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Mbacke di sant bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di nuyu mbooloo mi nga xam ni moo tax ñu teew fii muy muxaddamatul xidma Euh, di teg nuyoo bi ci loxol kilifa gi ko jiite muy Serigne bu so mu jottali ko ci mboolem mbooloo mi nga xam ni ñoo jiite liggéey bii te man cee lim ñu bari waaye xëy na lim bi du ko jar bu fekkente ni jiital nañ Serigne Xaafiya rek dana yóbbaale mboolem ñi nga xam ni ñoo yor liggéey bii euh, comme ni ko euh, Serigne Moussa waxee léegi ma yëkkati ay kàddu nag ci turu Assis muy. association des commerçants et industriels du Sénégal waaye am ci pàcc boo xam ni moo féete Touba le président Fallou Khouma mii ci sama càmmoñ jiite ko ah ginnaaw bi nga xamee ni nag euh, mbir mu baax mu màgg mii yéen waa Xidma boole ngeen nu ci. te liggéeyub Serigne Touba képp ku la ci boole rek mënoo koo fay kon ñun ñoo leen war a sant ñoo leen war a gërëm ñoo leen war a jaajëfal wax dëgg yàlla ndax yeneen ñu may opportunité pour ñu mën cee bokk parce que lii lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal. ndax yéen da ngeen fee nekk di joxe seen alal di joxe seen doole ñun xëy na suñu alal rek lañ joxe. kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di am yaakaar ne lépp loo xam ne daal yëngu na fii soobe yàlla bu ko Serigne Moussa mbay mi yëgee wala Serigne Fallou Khouma danañ ci def euh, la nga xam ni moo leen war pour mbooloo mi jot ko te bu soobe yàlla lépp luñ ci mën ci taxawaay daañu ko def. Ah, moo tax Serigne Fallou tey tànnoon délégation bii Euh, nii nañ fi teew tey ci bis bi nga xam ne mujjantal ci koor gi ngir saafonteeg yéen santante gërëmante moom mu jiite délégation bi euh, Serigne Baye Massila mi bokk ci délégation bi ak Serigne Mourtala Sey Serigne Aslo ak Serigne Basirou Dia euh, Serigne Baaralo ñu ànd ak sëñ Modou Makhtar Diaw ak Serigne Moustapha Lo ak sëñu mag sëñ Morosa Mbay mi jiite royet te royet ak assis du kuréel goo xam ne mag ak rakk rek ñuy suñuy mag. Eh, ñu fekkoon leen ci dëkk bi ñuy liggéey liggéey bu am solo ba xëy na seen i at léegi ak seen i kattan mateetu ko waaye seen alal di ñëw kon yaakaar naa ne dox bi ak yëkkatiku gi ñun ñii la war luñ fi def mag ñoo ñuy jiitu woon rek lañ ko defal luñ fi waxee ñoom lañ ko waxal. kon président Fallou Khouma nee na mi ngi leen di sant bu baax Serigne Abdoulaye di leen gërëm comme ni ma ko waxeen ku la boole ci liggéeyu sëñ Touba rek euh, yaa ko war a sant yaa ko ameel njukkal yaa ko war a gërëm rafet. boo xam ni kawe na njort kon euh, Assis ñi ngi leen di sant bëggoon na lu ëpp fii lu ëpp lii teew fi waaye am na ci ñoo xam ni xëy na yëguñu ko am ci ñoo xam ni biñ ko yëgeet am nañ ngànt ba mënuñu fee teew waaye lii ñu def ren ci taxawaay. waaw kon niñ ko waxee woon rek sant daal mënta weesu sant ngërëm mënta weesu ngërëm geneen cant gi ci desit euh, président Fallou Khouma mi ngi koy jagleel Assis ndax depuis bañ ko créé ak nëgëni ACIS dafa boole ñaari liggéey liggéey boo xam ni euh, syndicaliste la pour defendre défendre yi commerçant yi waaye nag la ci jiitu mooy liggéeyal Serigne Touba booba ba léegi gis nañ ñu ngi ciy dox. mu ngi leen di sant ci li weesu ci lim jëm ci liggéeyu université bi li jëm ci liggéey bi nga xam ne moom lañ seq ak waa xidma ak mboolem li yëngu ci dëkk bi rek te mu jëm ci mbirum Serigne Touba euh, président gis na ni ci waa assis taxawe Pastef ak euh, jom ju mat sëkk mu leen di ñaanal képp koo xam ne def nga ci saw ñaq rek yal na ko sa borom ful euh, te kaweel ko te lépp loo mën rek bu déwénee nga mën lu ko ëpp ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo am pay yàlla na nu fay te fayal nu sëriñ boobu baax a baax te ñii jiite liggéey bi ba wooñ ci ñu ànd ko yàlla na suñu borom fay ñu yàgg koo taxawe te lépp luñ ci bëgg rek ñun ñëpp rek yàlla na ci daje ak tawféexi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Cheikh aw Balla jaxate ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ci turu ACIS waa Muxaddamatul Xidma itam ci turu sëriñ Afia mi ko jiite ñu ngi leen di delloo ay cant bu baax di ko jaarale ci seen ji seen jëwriñ ji sëriñ Moussa mbay mu jaarale ko ci seen jëwriñ jii di sëriñ Fallou Xuma te nekkal leen fii ci tuubaa ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ne def ngeen ko ak yitte ji ngeen def ci koor gi boo ngeen gisee tey jii nag ñu leen mooy dañuy bëgg li ñuy def ngeen teg ci seen bët naam doy na leen sax xam ngeen di ci sëñ Tuubaa jëm waaye ngeen tekki seen bët day yokk Pastef bi day yokk itam li ngeen doon def ngeen xam ne fi ngeen koy def jar na ko loolu moo waral moo sabab woote bi te yaakaar naa ne yéen ñëpp gis ngeen ne ñëw gi mënutoon na ñàkk ñi ngi leen di gërëm bu baax itam ci seen taxawaay ndax jafe-jafe yi fi jaar yëpp waxoon naa ko ci ndaje ma mooy natt yi suñu borom defoon ci marché bi muy lakk gi xam nañ ne daaw ba ren année crise ci lañ nekk ci wàllu Covid beeg yu mel noonu commerce bi économie réew mépp taxaw waaye yéen da ngeen a gëm ne Serigne Touba xamul yàquteg jamono xamul naqari jamono. li ci seen i poos Serigne Touba ko moom saa yu ko soxlaa ngeen jox ko ko loolu itam positif bu ngeen wane la waaye sëñ bi tax ngeen koy def yàlla na leen fayal boppam yàlla nañ ko teewee ay at yi at at te li ñuy def lépp sëñ bi nangul ñu ko ñu bañ cee gis suñu bopp ci barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant nañ bu baax a baax a baax sant nañ bu baax ok jërëjëf